gars yi yéen ñiy suivre sport ñu ngi leen di nuyu di leen wala ñoon ci benn vidéo wàcc Sadio Mané bi nga xam ne di guddi yi mën nañu wax ne Bayern Munich dugal nañ ko ci mercato bi pour bu semaine bi jeexee mu ko fële ca Bayern Munich après bi nga xam ne mën nañu wax ne di AC Milan pare nañ pour semaine bi mu nekk seen nouveau joueur dañu wax tamit ci Iliman Ndiaye bi Iliman nga xam ne am na club bi koy bëgg ca Serie nga xam doon na ko bëgg bàyyiwul ba léegi mi ngi ci tànki pour jënd yi njëkkan ci page bi ngeen abonné te nga bës ko notification bi pour ngeen si loo taara fii ne nag ku nekk xam na ne ay Milan ñu ngi koy bëgg maanaam AC Milan la par nañ pour déwén Boulaye Dia nekk seen jour ci naka la nekk seen jour mooy Boulaye Dia mii di AC Milan soxla nañ ko bu baax a baax ndax Milan dañoo pare pour euh, ki nga xam ne mooy Giroud contrat am un an moo ci des maanaam bu contrat bi jeexee de. parewuñ pour prolonger contrat am maanaam ñu bëgg wuti benn jour boo xam ne dana mën a yor seen fubal te gis nañu Boulaye Dia mii de profil xaw na ne profil Chérif Chérif ba am sax loo xam ne am na ko te Chérif amu ko ah deuxième ba tamit mooy ki nga xam ne mooy Ibrahima Fils mu ngi ci 41 ans te contrat am jeex na te ñi nga xam ne ñooy AS Milan duñ koy duñ prolonger li nga xam ne mooy contrat ñu jógee ñëw ci ki nga xam ne mooy Ismaïla Sarr ñi nga xam ne ñooy waa Everton par nañ pour jënd xale bi par nañ pour def effort over pour saison bi ñu jëm Iliman day nekk seen nouveau joueur am ay yu takku nag di ko bëgg ca Serie A waaye xale bi day yaakaar naa ne Everton moo nekk li nga xam ne moo ko gënal ndax day bëgg foo li mooy Premier League wante est-ce que nee la seen xalaat maam choix bi gën ci moom nekkul mu toog li nga ne mooy mooy euh, ki mooy civil mën a fool déwén Premier League moo gën wala déet ñu jógee ci Iliman Ndiaye ñëw ci kanam mooy Sadio Mané nekk fa ci Bayern Munich Bayern day dugal nañ ko ci li nga xam ne mooy mercato bi pour jaay ko waaye bàyyi na dañoo bëgg benn suur Napoli boo xam ne waa Napoli ñu ngi ciy fayu cent cinquante millions xam ne mi ngi tudd Osimhen bàyyi na nag bëgg nañ xale boobu pour mu ñëw remplacer ki nga ne mooy Sadio Mané ndax Mané Sadio kaa point maa def la la faa nekk daan def wala sax mu def lu loolu waaye Sadio Mané est-ce pare na pour nekk joueur bi nga xam ne mooy joueuru Napoli loolu nag dañuy xaar ca kanam ndax la ca kanam réew li gën waaye saa man daal loo ci mën dégg lu mën tam mooy am boo xam ne chaque année da nga xam ndax bëggul toog léegi sa année du nga xam trophée te loo ci mën a dégg pare na pour toog bàyyi pour gagner ay trophée yoo xam ne du ñu rëccul ko jënde kon gars yi woy na abonné di commenter di partager merci beaucoup am ngeen jaajëf bu baax a baax a baax